يا خير ديف الأتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد السلام عليكم نيوب جلد أم رمى ñuy dégg ñëpp ak ñu ni seetaan di jéem a tàbbi ci liggéey boo xam ne benn féetewu ko kaw ndax xamle ca la nga xam lu néew ak bari ci nitu yàlla tiyaa ba ëpp ko ci yow ma koy wax ak ci ña koy dégg Cheikh Souhaïbou bu moom boo tuddee xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek fa la euh, euh, ñëwug àddina li ñuy wax nasab wala wala wala juddu fa la mën a yem ci bu baax kon foofu moom mooy lu ñëpp xam tamit ngëneelul yàlla la ngëneelul yàlla loolu nag dafa doon taamu lu ne ka ko yeyoo yàlla def mu taamu woon askanu Mamadou Asta Jaxate ak ma parti si la koy wax libaas euh, loolu mooy askan wi Cheikh Souhaïbou ñu ko Sëñ Tuubaa tànnal du ci li ñëpp xam ba mu koy taamu lam ca waxoon ñëpp dégg na ko ba mu yónnee maam Thierno Mewndu ñu ngi koy taamul askan woo xam ne ña ca bokk seen juróom-ñaari maam kenn mosu moom mosu ñoo doon it ñuy faloo ko folli ko nañ doon it ay kàng fóore duñ duñ laaj masala na ñuy dunde yi lu leew sart yu bari la loola nag yàlla taw féexale ko suñ mu as sa jaxat muy waajuru soxna Mariama muy waajuru Cheikh son yu kon loolu mooy binis ba laxu euh, yàlla def na mu ngi gënee àdduna tam njaareem ci année 1918. Euh, bokk na ci ay kiimtaanam ci ñëw àddunaam fekk na soxna ma reematul moomu ko di waajuram amul wéladi ku tar mm-hmm. waaye ci barkib Sëñ Tuubaa baatinam mm-hmm. mu def ca baatinam ba wéradi googee ca biir wéradi digga ci la Cheikh Son bu gën a àddina kon bu ca bu ca bu ca demoon loru suñ Son bu du ñëw waaye suñ Son bu damay bëgg ñu xam ne ba àddina suñ Tuubaa fa mu moom jëkk na ëpp ñëwam <coughs> loolu moo waral ñu gën a ëdd lañ ca teg rek soxna si noppalu suñ suñ tuwaa wax ca lam ca wax ci waajuram wax ne waajuram dafa jot bakkanam moom sëñ bi ndax ñoo tolloo woon wér digg saayir ca booba jamono daal di koy méngaleeg soxna Aminta Lo waajuru Cheikh Moustapha moo waral bi mu demee mu ne nañ ko yóbbu fa moom daal di woo soxna xari sill mooy waajuru sëñ Abdou Samad mm. dénk ko ko ci wàllu radaaxa mu hmm. ndàmpal ko hmm. moo tax suñu Abdou Samad ak Cheikh Sonia bu ñoo bokk wenn waajur wu góor waaye day mel ne ñoo bokk tomb waajur wu jigéen hmm. booy wax ci boobu nag day mel ne ci li ñëpp xam mooy jàngale alxuraan ak jàngale xam-xam te fekk loolu da am lu ko jiitu lu bari lu mu daj ci yoon wi daj ko ci bokk gi daj ko ci lislaam gi euh, bi nga xamee ne jàngee nañ alxuraan fii ci am sutu Ba yeggal ba Cheikh Moussa wax yóbbu leen tundoo di tàmbali nañ ci njàngum xam-xam waaye foofa lañ koy yeggalee gannaaw bi lañ leen indi Touba waaye li indi Serigne Abibou Mbacké Touba ci so làmmiñu Cheikh Sonia la génne euh, dafa ñëw fii fi Serigne Amsatou ne ko ñu di bëggoon nañ nga taamul ñu koo xam ne dafa bokkoon ci yar bu njëkkub sëñ Tuubaa ba te jànge ci sëñ Mat Dem sëñ am surtout ne kooku de xamoon naa ci ku ñuy wax sëñ abi bu Mbàkke laxasoon na jàngi gannaaw bi ba ñibbisi na xam naa suñ ci mënee waxtaan ak sëñ Muudu dey ba mu andil leen ko moom la ngeen ci bëgg dangeen ko am tuuti tànk amagul ñaar fukki at <laughs> yooyu dafa am solo nit ñi di ko xam hmm. suñu am satu ne ko da ngay nekk nag kon ma waxtaan ceeg Cheikh Moustapha waaye xam naa koo xam ne day jàpp naa ne mën na ci sañ bu dara ñu koy wax njaxat gay doon wala suñ son bu boo ko laajoon waa këram ñii fi nekk tey ci say di dund danañ la wax kanay njaxat gay suñu am satu woolu suñ Mbàkke jaxat yónni ko ci njaxat gay ne ko na fi ñëw njaxat gay ñëw fi mu wax ko lii suñ son bu wax mu ne ko loolu de mën naa nekk suñ Abibu di ñibbisi na waaye fi am ne daa toll ci jàngal soxna may Kabir Masaalik xam naa sax lee mu jeex waaye xam naa buñ ko jaaree ci sëñ Moodu mën naa am li bëgg da ngeen ko am wax ko sëñ Moodu Mustafaa buñ ko waxee sëñ Moodu yónnee woolu sëñ Abibu daal di ko jox ndigal lii kon

taxawaayam bu tedd boobu 1945 dafa fekkoon suñu soñ bu njëlbeenam ku teel xam boppam la ci wàllu ñeme njaboot dawul yandal dawul fanaanal ngir njaboot gi loola war bi sëñ muur yi dem suñu soñ bu fekkiwu suñ muur yi dem ba mu ko yégee ba ñëw ca la jaayan ni fa sutu yéene génn dëkk bi 45 ba léegi lii fi xew te fekk ko te sëñ Tuubaa digaloon na ko muy jàng ka jàngale. di indi daara ji tey laa lay wax. bi mu ko tàmbalee tam ñu féete fa nag njabootu sëñ Tuubaa yëpp ndax ñoom ñëpp la laaj seeni seeni doom. kan ku ci ne doom ko fa jànge boo ko laajoon daan la sëñ son moo ñëw saa kër bàyyi jël ma yóbbu. am na ñoo xam ne xam leen yóbbu ci ñu mujj yi. motu motu ñoo dal. kon liggéey bi mu liggéey ci lislaam liggéey ko ci liggéeyal ko sëñ tubaa suñu yaakaar àddina ak àllaaxira kenn bu nu ko def xiyam ba xam na mu toll ci diggam ak ñi nga xam ne ñoo doon ay bokkam yi ko jege bokkam moom sëñ bi ci borom weer wu tedd wii rek ci laay ñëw diggam ak moom moom Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Amadou Fadal dafa xëy woolu Cheikh Amsatou moom ñëw mu yónni ko ci sëriñ Soyew ne ko waxal ma ko ne ko day sant naa ko gërëm naa ko ndax dëkkub sëñ Tuubaa bii de ni ma ci wétalee fekk kenn fekk ko ci wétal lu xóot la sëñ Fall wax na ko loolu muy dégg ne koy digal naa ko bis ma wàccee liggéey na ma toppatoo na ma jullee hmm. sëñ son bu sëñ Fall sëñ moo jullee Cheikh Amadou Fadal hmm. te boobu ay magaman yi hmm. loolu doy defe naa féetiwu ko kaw ci wàllu koo bokkal waajur ba noppi sab taaw mag ko ndax soxna benn fàllu moom ak Cheikh son bu daal moom suñu suñu felu ko. waaw boobu daa daa fa ñuy wut àgg waaye soxna benn felu daal moom sama maama sañ naa ne moom ak suñu soxewu waaye teewut. Cheikh suñu felu moom lii la digle hmm. tax kara bi koy toppatoo suñ suñu ëpp daxat boobu suñu am sa ngi dund. Hmm. te it li lay li lay xamal sëñ bàttinam sëñ Fallu Cheikh am sa toogam ak tuuti ci saayir ci at. Hmm. waaye yónni gi mu ko yónnee ko moo fi jógee na def lii. moom xamoon na ne si ñëwtu dana fekke loolu ñoom dañ doon jommale ba dem loolu defe naa ne dama ko doon barkeeloo rek ci digganteem ak ku tedd kooku nga xam ne lii jaar na seen diggante sëriñ Souhaïbou ak Cheikh Abdou Lahad ak Cheikh Saliou ak sëriñ Abdou Samad su bëru Tabaski masaan jot ku tedd ki day yónni sëñ Taïba Touré booba ci oto yi kër gi la yor hmm. booba sëñ Taïba Touré sëñ euh, Fallou Diop Matar Anta hmm. euh, sëñ Fallou Ndiaye xewar hmm. booba ñoo yor oto yi kër sëñ Touba yi bu Tabaski jotee wala Korite da leen di yónni ñëw ci sëñ Amsatu jël si kilifa yooyu bu ñu demee ba bër gi jeex mu yónneewaat ñu jël si sëñ Amsatu ngir buy tàggoog ñoom am sutu fekke tàggoo ba ci loo xam ne waa këram yëpp xam nañ ko bi suñu am sutu jógee Touba ñëw ñu ubbil ko kees gi muy dugg si fekk sëñ bi woolu nañu tedd ñooñu bañ ñëw ci jataay bi suñu son bu nett na ko ñëpp loolu doomu yëpp dégg nañ li may wax bi sëñ am sutu duggee ci kees gi ñu ubbil ko bi mu yëkkatee jéem sëñ bi ci mbaar mi dafa bóof fi suuf di di raam ba dugg mbaar mi suñ tubaab benn tali bi mu daw ko jox loxo ci ñim yara mosut am loolu léegi la xew doo jaar ci santam tam ngay rek boof mooy la kooku diw ñëw ngaa mu ne la waaw sa bëtit suñu sooy bu daanaka nett nee na seetlu ne suñ am satu yëkkatiwut ab jéem ngir xam sëñ bi xool ko suñ mu ne ko am satu jow ngaa mun a ko waaw amanteeg moom laaj ko dañ ko war a laaj ci njaboot lu gudd la waaye damay tënk rek bi mu waxee moom lam mu koy wax ci ñoom ba noppi ndax daf ko ne seetlu naa njàng mi day waaye dafa mel ne li nga doon ci ñoom feeñee ci njàng mi xaw naa yeex mooy mooy mooy mooy maanaamee ndax daa am tëg fitna si ñoom surtout ne tekk ba mu ne ko ah bàyyi jàmbaar jaxate day amoon na doom ju ñuy wax Alassane jaxate xam naa su ma ci amoon ndigal jëli ko moo ma ci jàppale dégg nga ko ni déggi dégg bi ci li ko wax mu ne ko am nga ci ndigal wala ro seigne alassane ñam tudde bi mbakol jëli ko andi mu jappale ko ci ñu tedd ñooñu ndax la ci di fitna so juju ñi xane moy tax ñang mi gaaw ni ko seigne bëgge am surtout mu mënul lool ndax seigne touba ko yar te xam na ñim yor ñoy kan euh yu gi ci ndax ay histoire li day def ngay wax ñu cay déggee te te déggin wa rafet yastami'uuna al-qawla fayattabi'uuna ahsanah danañ ca jariñoo moo tax lu ci safaan rek ñu jéggal ma ko ca la ko diggalee moo ko am surtout buñ buun buñ saalañ buñ buun nay defaray gàtt di leen jox seen bopp yi buum sax defe naa yéen ñii nga xam ne Cheikh Souhaïbou booy leen meññi taamu ngeen ak ñim yar saalañ moom ki ñu mu woon def ci kër ga ndigalu sëñ Tuubaa loolu bokk na ci fekk na laaj na leen ñoom sëñ bi xam naa ni ñuy dundee ba ñoom ñu wax ko bokk na ci lañ ko xam lam leen laaj da ngeen naan café dangeen ngeen naan warga da ngeen buun kooku mu laaj leen hmm. xam naa ñoom itam ñu waxee nam nam amee hmm, hmm, xam naa soree geeg léeg-léeg jeeg yëf-yëfaan yooyu mu ne ko nga ne da laaj ñoom da laaj naa leen waaye daa mel ne li yaar yi moom léeg-léeg mu xaw fa am manqué sëñ am ne ko ah daa ko dut am de xanaa léeg-léeg te ñi mu ko wuti fen ndax yaa ma ne woon bu génn dëkk ba mu ne ko baax na ca la ko am sut noppee manqué nag moom ba bi mu fiy jógee lu ne ay magasin lañ ko ci miraas yooyu dafay yu loxo yoo xam ne ñu ma ñu ma jéggal nag ci nettali yi ndax mbirum baatin kon suñu sooy wax na ko ba tàyyi suñu fàllu ñëpp nett na leen ko suñu fàllu surtout ne jàppoon nañ ne ñoom suñu am surtout kenn féetu ko kaw ci kilifa ndax li doon ci ñoom ci bopp ak jox gi leen ko suñ tubaa jox waaye bi mu duggee ci kees gi màndarga yi mu def hmm. ra sukk suuf di raam di ñëw defe woon na ne kes kenn du ko defal kenn waxutuma ak moom moom koy def moom nee na ca loola ca la ca la xam que ne sëñ Tuubaa moom moom Cheikh Souhaïbou boobu nett nett na lépp loolu hmm. bi ko sëñ waxee moom ba muy dem ba mu ñaanal ko bi muy génn fi mu doon buut buuti di ñëw noonu la toppee waat di ko maasale di dem ba génn kees loolu mooy kon yaru sëñ Tuubaa hmm. ak ñi ko toppoon hmm. xam ko sax yombul. waaye day mel ni dara juñ ko jox. moom yàlloon na ko mbaa ju ko ëpp. mu mel ni njabootam giit ba ba day tukki dara juñ leen jox nan ko dugal ci dara ju jooyee suñ maam daan jox ñooñee. ndax yàlloon nañ kon. ci wàllu diggam ak sëñ bi. ak xam surtout ñu nekkaloon. ba mu leen di yeewi nag daf leen ne ñii de maa ngi leen di digal. kemtulaay nu ngeen bëggee rawante ci sama mbir mi ngi tënku ci nu ngeen gënee fonk mbirum am satu dégg nga sëñ Tuubaa ni mu leen di recommandé ak suñu am satu ngir ñu jàppale ko tey ak ëllëg ci wàllu say ñoom ñëpp bañ génnee lañ wax loolu sëñ Abdou Lahad ma ko nettali dañ ne fas nañ yéene day sëñ Abdoulaye Jaxate ab taaw moonu mag itam waaye fas nañ yéene suñ mënee dara danañ féete sañu am sut foo xam ne Abdoulaye du ko fa féete loolu hmm. li ma ci fekki lépp sama bàyyi nettali na ma li ci bay ëpp itam fekke naa mujj gi lépp ndax fanweeraat yi mujj yëpp fekke naa ko ba ci mu mujjantal waaye ci suñu son bu laay ñëwaat ci wàllu boobu hmm. ci jamonoy guerre bi nga xam ne dara amul da def bu tukkee ci réew mi doxantu bu ñëwee li mu am ci wàllu dund muy pepp muy ceeb da ciy wut ab lim boo xam ne muy ëpp bi muy def ci këram fuuf booba saako yi ceeb yi mooy saako yi am kuulu wert wi noonu mat bëri ko cent kilos bëri ci pepp mi tam ci ay nàmmaan lañ koy def waaye suñu sooy bu day woo Amadou Jong suñu Amadou Jong astaxfirullah bàyyi la ci man bàyyi suñ kan ak euh, sëñ Ibra Wañaan Wañaan góor ah, yi ak Ba Wañaan boobu ñooy dongo yu mag yi. Hmm. bu bu waree ay yónnee sëñ am sët li mu koy jox day yónnee ay paan paan paan yi jigéen ñi fóote ñoom ñaari jàpp yi ci lay jënd lu bari bu ñëwee saako mu ne ñu sotti ko ba paan gi mëkk. nga xam ne du jóngi jëm kaw du curi hmm. suñu sooy bu ko amoon xelum àddina la te bari woon sutura pem bi dañ koy sotti ci paan nam lim ba toll ba saako yee jeex dugub ji dañ koy ceeb bi dañ koy sotti ci saako yi ba lim ba jeex fekk jënd na pusam ngaax ak diis yi ñu koy ñewee hmm. woo dongo yi ku ne yeno ak paan bu dongo yëpp yenoo mu jël ka ca mag ca ñoom jox ko xotti saako yañ ko sottee woon ne ko boo demee neel Cheikh bu ngeen demee ci Cheikh ne ko maa leen yónni ci baayam wax ko ne ko lii bàyyi ma ko waaye nag na ngeen taxawalaat saako yi sotti ko ci ba mu mel na meloon ngeen ñaw ko ba mu mel na meloon ngeen doog a am jot nga xam ne ñi ñuy romb kenn du xam lu ñu yor. Hmm. Hmm. surtout hmm. surtout loolu la ci jublu boobu la boo xam ne képp kuy defati lu baax. loo ko gën a suturaal. royee ko suñu son bu moom baax na. diggam ak Cheikh Abdoulaye nag ak Serigne Saliou moom ci li ñëpp xam day mel ne ñoom seeni njaboot ñëpp a jaxasoo woon waaye day mel ne ñoom nag ku Serigne sa waajur rek gi ci ëpp que Serigne Saliou nga xam loo Serigne Saliou noonu ba ci Serigne Bass mii ku Serigne Saliou euh, fa la defee lépp ànd ko booba suñu saam suñu Abdou Khadir ak suñu Cheikh ak ñoom ñoo mënoon leen teel yàgg naa féete bokkam yooyu fu rëy rëy rëy ak sëñ Abdou nag moom du woon diggante mag ak rakk diggante taalibe ak ab sëriñ la ko jàkk woon hmm. suñ daan bay ba mañ muy yor sëñ Abdou fekk fañ jàkk lañuy ñuy jàkk mu toll ni ko yóbbu suñu sooy bu du ko yëg nga xam ne suñu sooy bu day laajte rek ñu ne ko suñu bu du jaar na fa borom na ko yóbbu loolu hmm. te du ko yëgal du yëg ni du yëg loolu am na hmm. kon nangu loon na ko hmm. diggam ak Cheikh Saliou nag moom ci li woon ñaar benn lañu woon fii ne suñu Saliou yu mag yëpp yëpp yëpp yi ci ëpp ñi ma ci xam jaar nañ ko suñu sooy bu nga xam ne mujj na ñaari kër yi doo xàmmee ku ciy dongab kii ba ci Moussa Niang ñoom ñii di dund bokk laa jël naa la ko nekk ñoom ñëpp jaar nañ ci loxo yi Cheikh Souhaïbou ba yi ngeen fekkee ngeen loolu bi nga xamee ne sëñ Saaliw bëgg daara yi alxuraan yi sëñ Souhaïbou la laaj ay hmm. yu bari ak ñu ñu ma ko alxuraan ci daara Cheikh Saaliw ci suñu joint wala ñu leen jàngal jóge woon euh, mu mel ne tam ka ca bopp booba muy suñ laat jaxate mii bokk ak suñu waxtaan jaxate ndey ak bàyyi defe naa bari na ci sang soo xam ne gannaaw suñu Mahamadou Bousso suñu ab laat moom moo leen xamal <coughs> kon seen diggante benn lañ woon duñu woon ñaar ci wàllu liggéey suñ tubaab bi suñu joint bi tam daan def bu xaaju guddee mu yónnee ci sëñ bi ne ko ne ko naa fa ñëw bu tànk dogee benn mu ànd sëñ Abdou Lahad sëñ Sohaybu wala sëñ wala ka ko ka ko sopp bu fa demee balaa mu fay jóge dañuy fajar ji jege. nga xam ne sëñ Sohaybu dina ñëw ba agsi sëñ Saliou ngir bëgg waxtaan wi yàgg ci lay doog a laaj sëñ Sohaybu lu mu bëgg ko togg reer <laughs> te fekk boobu mi ngi lay jot mbaa ineel ataaya yi yu ñu koy tàngal itam ca booba lañ koy tàmbali waaye baraad bu nekk moroom dana man waxtu mbaa mu ëpp ko hmm. ngir bëgg waxtaan wi yàgg hmm. te duñ ko yëg hmm. kon seen diggante lu sori woon lu xóot la bu dee nun ñii nag di gone yu ndaw yenn saa yi mu yónnee woolu seen doomi nijaay ji nga xam seen donga mu fekke waxtaan waaye waaw nun ñi tam di gone yu tuuti baraade bi ñuy samar noo ko daan teggee ko tegal leen xam ne ñooy def lépp yow daal yow yaay euh, baxal satala gi euh, boole ko yére yi yóbbu waaye da leen di dànd nag doo doo bokk ci jotaay bi moom ci diggam ak nag àddina musu waaye ku amoonum ku ci amoonum xel la ku ci yeewu woon la hmm. sëñ Abdou Lahad mii li muy bari bari bari xam-xam ku baatin ak saay hmm. ku doy la woon Cheikh Souhaïbou la hmm. ndax daawul def lu mu diisoo wut ak moom lu lu lu lu bi lu diggante bi gàtt gàtt gàtt dana ko yónnee ndaw ne ko nangam laaj ko ca xalaat waaye suñu Souhaïbou itam balaa ma wax xalaatam ndawul ñaareel ñëw bu ma saan yónni seen jàmm bii dafa demee ne suñu soñ bu nangam suñu soñ bu dafa boo demee ne ko lu mu lu mu xalaat rek jub na fi ñëpp. bu ko defee bu Cheikh ñëwee suñu soñ suñu ëpp ne ko déedéet waxewuma foofu damaa bëgg mu wax ma lam ca lam la nga la la nga xam ne bu doon moomal loolu lay def ndax lii lu ñëpp a. ca la suñu soñ bu doo ko tànnat jukkat yam jàpp ne war ko wax ci ay ci orma kon doy la woon na ko. mu mel ne lii nga xam ne tey mooy liggéey bi gën a mag mooy njàngum xam-xam ni wax naa la alxuraan ji fi fi ci féete woon waaye mu féete fa ñëpp ba yàlla dogal daara ji ci biir mbooloo mi ak euh, taxawaay yi ëpp ëppati loxo waaye effectif bi bari na mu wax sëñ bi sëñ bu ne ko dama bëggoon tey daara ji suñ ko mën a yàqle suñu soxna bu ne suñ si Abdou Lahad ne ndaw la nee ko ko bëggee mu ne ko xanaa fii ci ñànk gi nga xam ne li ñuy jàng alxuraan fi la leen fi lañ doon jànge bu bay siñ gi gi ci ñànk loolu kilomètre carré la si am sutu amoon njëkk di fi béyee muy ay toolam su nawet jotee danaa ñu ngi jàng alxuraan dañuy boole ëllëg yi ak téere yi dem foofa di fa jànge suñu sooy bu ne kon bu ñuy wut daara jeneen kon fañ doon jànge alxuraan bu soñoon foofa lay doon loolu indi daara yi bàyyi seen géej gi bi nga xamee ne dem na ba bëgg mu gën a yàkkuli ko nag mu gaaral ko tey jàngu bii tey di université ci làmmiñ Cheikh sooy bu la jógee hmm. sëñ Abdou Lahad nangul ko ko daal di nii seen jaam bi di seen taalibe booba ko ñu wax mët jaxate moo nekkoon kadaas bu Jurbel sëñ Abdou wooba ko mu ñëw mu ne ko kon nara sëñ sooy bi nga xam ne moom la fi gi teg lañ koy fay ma fay sooy bu ñëwoon ñoom ba fii ci jàkkee sëñ Cheikh Saliou ci bi ne ko fii la dale ba ci fa ñu wax déggub seko moo nekk 30 mètres 30 bi nekk diggante janatu Mbawa ak Madiana hmm. mooy déeg boobu buy taa foofu ci buntu jàkk ji hmm. ah. biñ ko nattalee li nga xam ne jàpp nañ ne mooy ak université suñu jàngu bi biñ ko wanee Sëñ Abdou ci booba genn wàllu lii rek lañ la nattoon su ñëpp dane doom bi Sëñ Tuubaa kenn du ko doy doyal lii ñu natt nañ ci natt ñaari caam te booba suñu sooy moom lim nattulu liñ ko liñ ko wan ci ci liñ jot a natt moom daa ëppoon ci moom gis nga ñoom fi niñ ormaalantee ak ku ne ragal koo ragal mbirum sëñ bi te sa morom te ragale ko ci sa moroom <laughs> léegi la ragalante bañ léegi la léegi la xëy waaye xewoon na de mm-hmm. di ormal nit ba doo ko ñemee mm-hmm. booba genn wàll gi yëpp buñ ko njëkkee nag Cheikh Sow bu dana woon doy na ci moom waaye ñun lañ ko def un kilomètre carré mujj nañ sax wàññi ko def lee ay kër waaye loolu la suñu blaat joxe woon fii mooy penc mi mm-hmm. lii mooy kër sëñ Sow am fa defoon boppam mooy kër sëñ laat Sow bu mbirum Sëñ Tuubaa lépp day baatin Sëñ Tuubaa ñaanal na ko ñaan gu gu fës fang ci Matlabul Fawzayni Sëñ Abdu Lahat section yi wax ko mu dox jëm ca jëf ca lam ci njëkk a jëf mooy dafa wóolu alaaji Njuga Kebe ne ko sëñ bu kat léegi bëggam bëggu Sëñ Tuubaa nag ku ci feeñ jootu nëbb mu mukk boobu Njuga milliards yi demee gudd nii njuga ne ko fas naa ko ci yéene fas naa ko yéene miire dinaa ci def itam fu ñu tàmbalee jàngu ak jàkka sëñ bi ne ko téewut man tam kat dinaa ci def may sanwal ndax sas naa taalibe yi te lu ma am dinaa ko ci def hmm. waaye da ngay bàyyi nag ba li ma am jeex ndax fi ndigalu sëñ Sonia bu hmm. ndigalu sëñ Tuubaa la kenn du ci jiitu ñu jël benn tubaab bu ñu wax rikkiti booba mooy architecte gu Ndiouga Kébé Ndiouga tabax rikkitee ko tabax hmm. moo miiree woon miir bu njëkk bii ci université bi ak jàkka ja ngeen fa seen ak école bi nga xam ne soxna may sëñ Abdou Lahad ñii ci xam yéene baayam ak bëggu baayam moom lañ njëkk a def école boo xam ne fa la ñu ñëwoon jànge sëñ Saliou itam ñu ñëwee ci la joxoon kilifa yu baax yooyu sëñ Abdou Khadir mu sëñ Abdou Lahad suñu ab laat soin bi ñu dëkkalaat daara ji ba noppi tàmbaliwaat njàngi mi foofu mooy daara ji njëkk a dugg foofu hmm. waaye nag Sëriñ Muntaxa wax naa ko ko benn bis te loolu ñun ñëpp noo ci maase ci sant ko ak gërëm ko ak ñaanal ko yàlla hmm. mu yàgg fi loolu te amul wér ci barki Sëriñ Tuubaa université bi itam waajuram yu ko nii sa doon ngir dëggal ñaanu Sëriñ Tuubaa googu hmm. moom itam mu façon ci ci xolom te ni mu du ko wax du ko wane ba doon sëñ Tuubaa dëggalal sëñ Tuubaa ñaanam googu waa juróom yooyu seen niser yooyu loolu yi lu ko sëñ Tuubaa dencaloon la. 70 wala 71 suñu sooy bu su ma saan jógee këram di julli si àjjuma buy ñëw day dox boobu oto amagul bëreewul. dina ànd ak sëñ Cheikh naam sëñ Abdou Lahad sëñ Laat sooy bu muy dégg ak Mbacke Kañ moom ngeen tudd. ak euh, ñaxal sek hmm. ak ña fa ne euh, benn bis ñu julli si ci àjjuma hmm. biñ jullee ba noppi fekk ñu jugaa ngir benn mercedes bu weex suñ seex gaaw génn ne ko ah alaj bul dem ba kat ndax suñ sooy bi ñu dari daa dox hmm. ñu ah, mu ne ko waaw mu ne ko dox mu ne ko taxama def ci gaaw di bi ne ko wàcceel ma samay bagaas carte grise bi nag ak caabi ji boo demee ba sëñ wàcc ba toog ci lalam dem fa jox ko ne ko màgg ko jox addiya sëñ Tuuba booba daanukat xew na ormal doomi sëñ Tuuba xew na ormal njabootu sëñ Tuuba xew na léegi nag xawma lu xew kon yoon wi dafa am ay réalité ak ay ay ay ay yoo xam ne dafa mat di fàttali dañ xam ne ndekete yoon wi alal jëriñu fi dara lu dul jaayante di ko jox Sëñ Tuubaa te yàlla tax waaye jural na ko lu bari biñ nekkee tuddoo di di jàng xam-xam ci moom Cheikh Moustapha ci dafa amoon suñu Moussa dafa waa ji dafa ma nekk foog nga ne fa. suñ ñu boole woon. fekk suñ Tuubaa dafa waxoon Mour Moustapha ne ko digal ba ba ba ba ba ci waxee. am sutu mii na ko jàpp. ne am sutu digal naa la mu suñ Mour mu mii na nga ko téye jàpp ak téye nag du benn. waxin suñ tubaab la ba ca kanam lu la jaaxal ci sa bopp laaj ko am sutu mi am sutu itam loo bëgg ci man jaar ko ci Moustapha mi <coughs> moo taxoon suñ mu Moussa ne ko suñu maa am kër foo foo foo sësut man loolu laa ko taxoon yóbbu ko suñu am sutu yóbbu fa dong yëpp suñ daam jurloo mooy maami xale yi gone yi maami suñu Omar Jaxate mi suñu am satu ak ñoom ko bokkal ak ku ñu wax suñ moor joorloo suñ moor joor nag amoon soxna suñu wax anta lëy at bu jot dana ci amee loxo ñaari yoon ba ñetti yoon bañ jàpp ne loxo bi dana ak ak loxo mujj bi jàpp ne danañ ko dagg mu ñëw ci Cheikh Souhaïbou hmm. pour wax la ne ba mu dalee wane ay kiimtaanam ba mën naa ci nett lu yu bëri waaye day def lu ci lu ñëw sama xel rek ma fàttaliku ko xamaat mooy xamaat mooy kan ante lay ñëw ne ko sama loxo bi day dafa gis nga ko nii at bu jot mu dikkal ma ñaari te nee sax mu mu nañ ko dagg suñu sooy bu ne ko demal nga wut neen yi ginaar nga baxal ko ba mu ñor hmm. nga wut pot bu yaatu xam boo pot dagg xew nga def ci suuf nga rangale ko ci ba du gaaw a toj mu neen ya toll nag ci bari ak ci néew ñooyam fi man waaye na doon yu baxal ba ñor ndax boo bëgg na ñoom ñooñu di kilifa yi léeg bu ñu bën cee jëfandiku ante lay dem def loolu fag dam ko ñëwee suñ soñ bu tàllal loxo bi ñaan ñaan boobu suñ soñ buy tifli tif tifli suñ soñ bu ku ko xam tëf lay def bu nga ko defee ñetti yoon maamante lay ay ay ay ay doomam bu yàggu la fi jóge waaye ay sëtam a ngi fi te lii may wax koo ko ci seetaan wala nga déglu ko da ko dëggal ndax nett seen maam nett na anta lay nee na waxuma loxo buy metti waaye dund na ba amaat juróom ñeent fukki at doog fee jóge bopp képp bu su ko metti moo jur bàyyi seen juróom ñi nekkoon bëkk néegu si xam satu ak kañ wax Abdoulaye Lo seen kër yi foofu ci madd yàlla ci wetu kër bàyyi seen ji sët yaa nga fa ak doom ya bu ngeen leen laajee lii maam Anta lay ñett ni leen leen loolu ci diggam ak Cheikh Souhaïbou moo tax li ko sëñ Souhaïbou def boobu mag la woon eh, sëñ Souhaïbou boobu amul ñaar fukki at laa wax gis nga médecine gii nga xam ne da ciy yéeme nga xam ne xiisaa ruuxulaay lañ ne ko ciy méngale ci ndono hmm. day mel ne ca booba jamono la ko amoon nga garab yi mu daan jox nit da ko daan mbubboo rek di waaye wopp ju mos a yëg mu wér suñu sooy mos a yëg mos a faj ku faatu. tërbiye gi itam mel na ne fonkoon na ko lool ba ku ci moom moom da ngay insaan kaamil xam nga tërbiye gi moom buñ buñ buñ ko joxee koo xam ne doomi kilifa yi moom. moom moo leen ñi ca jëkk moo leen jàngalal boppam moom moom day day day leb sa dañu xoof sa bakkan carrément ba alxuraan dugg ci yow. kooku laa ci ñëw rek xaw naa tuskare bu dee doomi taalibe yi nga xam ne ñoom méngoog ñoom ay atit ñoom lay ñoom lay atte ñooy ñooy bokk bu atte suñu sooy bu amutoon ségrégation ci la fekk si laa doon bay fii ci mbaraan mbaraan jëng donc yi fi njëkk ñëw tey war a tarbiyu foofu lañ leen yóbbu woon fa lañ doon tarbiyoo sëñ Laay Juuf ñoom yi sëñ Mat ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokkoon génération ñoom ñëpp mbaraan yëng gi lañ nekkoon waaye booba lu ñu ban di bay itam suñu soñe bu ko du ko mos xorom suñu daal benn mu jox ko wala bi jëlal ko boppam bu du ko yëg dama ci nett lu tuuti rek lu fa xewoon te suñu soñe bu yéeme ci ak donga bàyyam bi woon fii yaa ma laaj mm, gi mm-hmm. ci dong yooyu dañoo am bis dong yi coowoo ak pël yi ba xeex am fa am ci pël boo xam ne dañ koo cor bam mu nekk diggante dund ak dee bi ñëwee wax ko Cheikh Son mu yónni bàyyi sëñ kan ne ko demal ne Cheikh na dem fa bàyyam ne ko dong yi kat dañoo joteeg pël yi ba wax nañ ca koo xam ni mu ngi diggante dund diggante dund ak dee hmm. mu bëgg nag mu def ci ay pàggutéef ci yi ko sëñ bi jox lu jëm ci loolu ndax bakkanu pël ba day dirot ci sama loxo yo yi dong am naa ci xel lool moo xam ne su ma sañoon du am hmm. suñu am surtout ne Cheikh waxal sëñ Can ne ko ne ne suñu son bu lim ci bëgg rek ay am bu soobee yàlla hmm. sëñ Can dam wax loolu Cheikh son bu mu ne ko dama woor ma Cheikh mu ñëw suñ Cheikh ñëw suñ kenn ñëw ni ko ñëw luy suñ Cheikh mu ñëw mu ne ko suñ kenn mii kat li ma ko waxoon wax na la ko wax nga ko sa bàyyi waaye nag loolu daal doyut moo tax moo woola boo demee nee ko bakkanu pël boobu bëgg muy rot di rote ci samay loxo yi dong boo lëgee ma koy layoo sama borom nekkoon na ci jëfandikoo lu ma wóor ne lii ma bëgg dana am su jeex ñëwee wax ko bàyyi mu ne ko suñu sooy wax na lii mu ne ko kon nag fii ba boobu ak ci yor-yor la mu ne ko fii ba ginnaaw gee bul ma fi nuyoo léegi kenn bu fi kenn dugg ndax magasin boo xam ne yoroo ci lu dul caabi borom magasin bi yónnee ci magasin bi di la laaj loo ca jox lu dul jox ko ko danañ ko nangu dégg nga fa mu nekk ak suñu sooy bu moom borom magasin bi te yoroo ci lu dul caabi hmm. borom magasin bi yónnee di ci laaj hmm. soo ko joxul lam ca laaj. danañ nangu magasin bi mu caa gis. bureau bi nga xam ne kon lépp xam nañ ne. sëñ Tuba <laughs> te sëñ Tuba mooy sëñ Sonia bu loolu lay jàngalee. yaa ngi dégg loola la ci la ci li cay li cay firnde laa lay wax. pël boobee dundaan na fi. ba jébbalu Cheikh Sonia bu. gannaaw suñ Sonia bu sëñ Fallou sëñ Sonia bu la jébbalu. ba fii ne ay doomam sëñ Fallou seen sëriñ. c'est vérifiable bokk laa jëm nett la ko ne la diw ak diwa ñii ci 1942 43 bi sëñ am surtout ma nappee mën a bind ci loxo bi lu xóot la te sëñ Souhaïbou boo ko faj sëñ Tuubaa dafa waxoon sëñ am surtout ne ko bi ma lay tuddee si naa am sa kat waxoon naa la bala nga fee jóge da nga gis màndarga mu ngeen bokkule sëñ am surtout xëy ab loxo ne ko tàpp dal loxo bi metti ba fu metti di bañ na ko dañ koy dagg. mu ne moom da cee sant yàlla ndax suñ tubaab diggoon na ko ko ndax si seddina am sa sahid la bu fekkee lii may lii ma fi nag man duma ko faj ndax suñ tubaab delloon na ko faj nanguwu cee def dara ba loxo bi commencé di saxe suñu seex dem sooy bu ne ko ah bi maam bàyyi bee loxo ba jéggi na dayoo te fu waxee rek mu ne dellu na ko du xam naa ne fokk docteur am ci yoon suñu sooy bu ne ko wax dara ba suba suñu sooy bu mbàkke la yónnee woolu docteur Fall mu ñëw ko suñu sooy bu mu ànd ak moom ñëw ci suñu am sut bi mu ñëwee bi mu ko xoolee dane bu ñu ko dindi bu ñu dindiwul baaraam bii mi ngi yël di jàll walla waral sëñ am satu ñu dindi baaraam ba mu sant ca faj ga ci li sëñ soñé bu def waaye mi ngi sant cam ci dël gi ko sëñ Tuubaa dëloo